bi sallallahu alayhi wa sallam. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. dafa wax ni. ñett soo ci buggee mucc. na ñett soo ci buggee mucc. mu dogal. dogal. boo ci buggee mucc. boo ci buggee mucc. foo toll deel ñaan. foo dogal kenn mënu ko delloo ginnaaw. dogal kenn mënu ko delloo ginnaaw. waaye ñaan mën na ko téye ba du yagsi. balaa. balaa. ca yàlla lay jóge te yàlla lu mu yëkkati fu mu ko jëme dana àgg foofu nee na soo bañee mu agsi ci yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax moo wax ni bari looy saraxe bu la balaa tiime it du wàcc ci sa kaw ci xew-xew bii xew nee na moom daf nii ñi nga xam ne ñi nga xam ne ñoo amee réew mi. nañu waxtaan ak waa réew mi. wax leen li xew. ni leen. li fi nekk. du feebar. du du jàngoro. balaa la. balaa na balaa nag amul garab. ñaan tuub saraxe. nee yii moo koy dindi. balaa la na balaa la. dañuy wax nee dañuy wax feebar bi feebar bi. nee na feebar amu fi. nee na balaa moo fi ñëw. nee na bi muy ñëw. Euh, betti na ñëpp. betti na ñëpp. waaye doole yi yàlla moo mel noonu. nee na jógoogu fi. nañ ko fi jëlee. nañ ko fi jëlee. nañu fexe ba jubóog yàlla. nañu fexe ba jubóog yàlla. yàlla buntam tëjuwul. ñu ñaan. saraxe. noppi te def lu baax nee noppi gi nag kenn mënu koo defloo kenn ñëppay wax léegi nag yàlla natt nañu ku ne di ŋaawu faf sa gémmiñ nee loo ci mën nee bu yàlla nee bàyyil nga të noppil noppil nga të mu foqati ŋaaw la nga faf noppi benn yoon. nee na kenn ñimetu la ubbi sa gémmiñ. nee na pourtant morceau bii musalul kenn. yàlla mooy musal jaam. ñi nee na ñi ci réew mi. amuñu garab amuñu garab. ndax feebar nekku fi. amuñu moyen. amuñu moyen. alal bariwu fi. ndegam am na fii. ndegam am na fii. bariwul. pexe pexe amul. tubaab yi ñu daan dimbale suñu nekkee tubaab yi ñu daan dimbale bu ñu masaan nekk ci problème. ñooñu gën a feebar. gën a feebar tal seen bopp. ñooñu ëppale ñiy dee. ñooñu ëppale ñii dee. kon nag nee na kon nag. ñun ñun. war a wax. ñu war a wax. li xew ñépp xam ko. suñu ko waxee na suñu ko waxee ba noppi. réew mi itam réew mi itam. am nañu ñu am am nañu sikk. am nañu sikk am nañu dëgër bopp am nañu dëgër bopp. buñ leen dee wax. buñ leen dee wax. rawale leen seen bopp. rawale leen seen bopp. rawale leen seen bopp. nee na yàlla moo ko njëkk a wax. wattaqu fitnatan laa tusibanna alladi ladina zalamu minkum xaasatan wolof ni ay nag du yem ci bopp boroom kon nag ne ñëpp rawale seen bopp. ne ñëpp rawale seen bopp. su fekkee ne na. bu fekkee ne état bi wax nañu. rawale leen seen bopp. leen seen bopp. bu ñu waxul bu ñu waxul. yéen rawale leen seen bopp. état nag état nag. bu dee wax ci feebar bi bu ci bii. ci lii fi xew ñu di ko tudde feebar ñu di ko tudde feebar. nañu ko wax ci wolof. ko wax ci wolof. ndax ay wolof la waxal. réew mii di Sénégal la waxal. nee na làkk tubaab bi bari na lool te ñuy dégg tubaab ñëpp nag bariwuñu kon na leen ko wax ci wolof dëgg na dëgg nag ku mu naqat rafetul nee ndax kenn ku nekk yaa ngeeg sa sagaru dëgg war koo wax te wax ko ki nga ko war a waxal nee na moom jubluwuma daaneel gouvernement wala yëkkati gouvernement wala contre gouvernement nee na moom politiqueul musul politique te incha allah du def politique waaye nag lu ñëpp bokk taat ci penc mi ñëpp fekk ko ñëpp séddee ko moo ci war ne ñoo nekk ci kanamu nit ñi nañu wax ak nit ñi ni leen ñoo fi ne di leen sécuriser amuñu garab amuñu garab. amuñu moyen amuñu moyen. alal amu fi pexe amul. na kenn ku nekk nag rawale sa bopp. nit ñi itam. nit nangu dëgg googu. nangu dëgg googu. fab masque yi. takk ko bu fekkee ni sabab la. ci liy rawale nit. ci liy rawale nit. na ko ñëpp def. moo gën. na moo gën. waaye réew mi. waaye réew mi. repère amatu fi. repère amatu kilifteef amatu fi. kilifteef amatu fi. baat bu ñuy déglu amatu. fi. yàlla taxatul. yàlla taxatul. adduna taxatul. alal rek. nee na alal rek. alal rek la ñuy lijjanti. loolu nag. nee na loolu nag. du baax. réew mi réew mi. ak li ñu war a def. ak li ñu war a def. état bi. ak li ñu war a def. ñun nee na ñun nag. avant état wax di wax nañu tëju. nee na ñun tëju nañu. parce que ci sunna la ñu sukkandiku. nee na moo tax ba léegi tijjeeguñu. nee na tijjeeguñu. Ah, la la Seydina Omar ibn Khattab waxoon. nee na la Seydina Omar ibn Khattab ko nee da ngay daw dogalu yàlla. bañ ko da ngay daw dogalu yàlla. mu ni waaw. damay daw dogalu yàlla. damay daw ndogalu yàlla. làqu ci ndagalu yàlla nee na loolu ñun moo ñu dal ñu ngi toog fii tëju di xaar waaye di xaar dogalu yàlla lu mu indi incha allah ñu ànd ci nee na loolu moom suñu ndono la nee na loolu ñu fekk maam Cheikh Seydil Hadji Malick def ko